nena nit ken du ko topu ba ci mbir waa waa kër gi kaay leen eh dimbali ma rose rose yow ñeme sa miix miix def ari gay lan la de lan def gi def ku ci

do sunguru bena guru sunguru bena bi do sunguru bena baba do sunguru bena so Gasunguru bena baba, gasunguru bena so, guru bena. Gosunguru bena abi, gosunguru bena baba, gosunguru bena so. chef quartier ah, ah, kontaan naa de. Ah, si ñoo ko bokk. ah boo amul solo euh, ko war a seet rek war na laa seeti ndax euh, chef de quartier euh, lii mooy waru garam ndax lu toll ni quartier ku ñu xool ci say jikko. ba fal la chef de quartier. Mhm. Euh, loolu lu rëy la. te nit dafa doo doomu aadama dafa doon loo xam ne euh, lu mata bàyyi xel la ndax walla xadd karam naa bani aadama. Mhm. lu am solo la te jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ba tax na euh, ni ngay ñëwee am yitte di ma seet war naa di wër ci quartier bi di leen nuyu di leen ziyaara kenn ku ne ma xam ci lu mu nekk soxna si. kontaan naa trop ndax jox nga ma sa sama cër. su ñëpp meloon ni yow rek kon chef de quartier seen liggéey dana yomb lol lol lol. ndax chef de quartier amul lu dul mm-hmm. te cër nak ko jox borom desalatoo ko dara euh, di la wax ne nak euh lima fi indi mom euh, jam rek la ak salam mm-hmm. moy sa ak soxna Binta Samb rek moma fi indi te adina amul solo li ngeen mujjé li ngeen mujjé soñ ko njëkkee woon rek kon ya fi li lepp du ko won jar waye suñu borom lu mu dogal fokk mu am ndax digënté suñu mbubb ak sol mbubb lo gaaw gaaw foog yaramu neen dox ci digënté li lii won ñak waye nak ñoo ngi di wax alhamdullilah rabbil alamin euh, ndax njabot gi seen njabot la te goromi nak sa goro la di xalé bo xamné gis na ci mom jikko yu yo xamné ne sha allah yaruna bëgg na lool jaamu yàlla nangu naa liggéey fonk na ay kilifaam te am na yar am na teggi te loolu rekk lañuy doy nit te it euh, góora Adja magam la ñoo bokk ndey ak bàyyi tey moom rek la dese ci kaw suuf góor man mënoo maa yàq chef de quartier képp koo xam ne xam naa ko rek dem nga ci moom kalaame ma moom ngir sa takkum jabar mi loolu jaru ko man damaa bëggoon nga xam fi ngay teg sa tànk bu baax yéene woon la koo xamante ni bu ëllëgee doo ci réccu dara mais comme loolu nga gis te yaa sa cëgal guy man dëkkuñu bokkuñu añ bokkuñu reer defal li la neex jaral na la ko man xam naa ni sa coroog yaayam ñoo ma la gën a won nga ma ko ba ma gis ko weesuwul nga tabax kër ba mu jekk meuble ba mu rafet dara manqué wu fa nga yëkkati ko jox leen ko kon man xam naa fi nga ma teg nit ñi nag ñoo xamul tax ñu may màmb ku ne di wax naa la fekk si ci li nga bëgg amul ben problème sa jabar la ya ko bëgg donc jëlal ngay motali rek yene gi waye mom danaka don nako bu yag ki nak man mom la moy sama borom kër bala mangang ngang di wax ben mu mom mi day wax contribution ba pare lu mu wax moy binta doguma la sax yalla bu la yàlla ndaw nga wax yep deug la aduna amul solo te nit mbokam yow mëno am ku sut binta mi ndax sa dred la mo namp ya bi jox la nga namp kon mënu la bañ bañu la lu bax rek la la bëggal te aduna bi amul solo te sey dafa di lo xamni

te ñaar ñu bëggante rahmatun yërmande nga ca moo tax ma fekk ko ci lim bëgg amul problème man nako fekk ci lim bëgg kon kay def na ni rafet na amatu lu ñuy wax xolal yow noko bëgge ak ñu ko bëgge rek ñu defé ko ni Gosunguru bena bi, gasunguru bena baba, gosunguru bena so, gosunguru bena, gosunguru bena bi, gosunguru bena baba, gosunguru bena so. maa sant rek mos. alhamdulilah. namm naa la. Eh, maa ngi nii de da nga am sens mais dama doon kii. ah bon waaye boo deux minutes rek doo ma fekk. <laughs> Ah, xam naa duma la duma la téye lu yàgg. naka ngoon gi. waaye sant yàlla sant sant yàlla baax. waaye namm naa la. mais maa ngi nii rek maa la doon gëj naa la gis. waaw gëj naa laa gis nag yow daanaka ba nga génne ci eh, kër Binta ba léegi gisuma la. waaw ah, gis nga de. dëkk bi moom moom toog amatul. daw rek da ngay daw rek ci daw rek ngay nekk ci daw rek ngay nekk. alhamdulilah yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax alhamdulilah. bien tey dama laa seet si woon Tons. dama laa seet si woon bëggoon ñu ñu ñu waxtaan rek ndax yow ku ne xam na ne sama diggante ak Ramatulaay. Hmm. Maysa su ma soñoon danga ñëw fii waxtaan ak man te tuuru Ramatulaay sax duma ko dégg. yow rek laa bëgg a dimbali nit dafay nangu lu yàlla dogal xam naa lépp lu xew sa digganteeg Ramatulaay kenn duma ko nettali mais lan mooy problème bi sa diggante ak Ramatulaay yàlla dogalu ko xam naa ni yow Ramatulaay rek nga bëgg moo jeex ci yow takk mais diggante bi loo ko bëgg-bëgg ak lu ko Ramatulaay bëgg-bëgg su fekkee yàlla dogalu ko diggante bi du am suñu borom nam ko bàyyil Ramatulaay nga teg ko fële. raxas ko ci sa ba mu mais un xalé yu ko gëna un bon ñi ci dëkk bi wala kese moo fi nekk gan am ko ma bëgg daal euh, sëy un ngeen jàmmoo bu baax a baax a la sax waaye bu fekkoon ne ni ma téye doomam. Mhm. noonu la téye sama bos un wax ji yëpp du egg fii. tey sànq. waaye binte daf ma tooñ. la dafa ci man. gis nga sama doom ji dafa teel a ñàkk papaam. dafa teel may yaayam maay papaam. ba pare nag dafa nekk xale papaam teel a génn àddina te doyalul ci moom. te man mii di yaayam tamit doyalu ma sama borom kër waaye nag yàlla kenn mënut a xëccoog moom. li nga sama doom ji Binta wax na ko wax coo xamante ni su ma ko xalaatee sax dootuma bëgg a gis mm-hmm. góora te góor a defuma dara mm-hmm. góor ku baax la ku ma teg place la ku ma bëgg la. waaye magam ji daf ma tooñ yow nag moom kilifa nga njool nga ba mënuma laa tëb loo ma ñaan dama la koy may dinaa bàyyi lépp nag ndax sa jëmm ji waaye damaa bëgg moom mu xam ne sama doom ji maay papaam maay yaayam maay léppam te damaa sonn ci moom euh, na bàyyi sama doom jërëjëf soxna si dégg naa li nga wax bu baax waaye na sa xool sedd na sa xel dal incha allahu Eh, problème mu lay réglé naa ko ci quartier bi mais li nga xamné mo gëna daw sama yaram ci wax ji li nga ma wax ne dal ay da papam dafa jitu waaye na la xamal len inshallah wa taala na fomp ay rongañam te xamné fo bayam fo ko bayam bu tedd ba fété won dina fexé bayam wala ma raw ko fuuf yow nak sa xol sedd kulu nafsin saa mautin pakan bu ñam dund da nga ñam de te euh du fi gan dogolu suñu borom la te yalla lu mu def nonu la jàmm bu ko xam nopp waye ni ma wax ni ma gisee sa comportement sax dafa dal xel ndax li ci kaas bi deug ba jarta set te it ni ma la gisee sha allah wa taala yow dal yow dal yow dal dama ne am lo xamne lettu mag la xali du ko firi mukke ca mukke ya, ñoxet ci ñoxet ci ya yow amna lo loo ne archive lay doon sama digënté yow bu ñu réglé problème bi ba pare di nga xam ne jaay la la bëgg mu gawa jar <laughs> fa ñuy toggee rek ngay mëna a dem te gëlëm jarta solo li koket ba mu juddo rek la ñol boobu ko xewagul kon soxna ci dal fi la lay euh dafa guddi ci dama wara a ci yeen ji tey mais inshallah wa taala te bu sef neexul sepp du neex te bo bëggé xey joy té amoy rongañ da ngay gàññi fanaanal na sa xel dal inshallah allah euh, Binta tey fii nga mujjee moom nga waroon a njëkke neexal naa la wax naa wax ju sedd def naa def naa lu ne dem naa fu ne demuma fenn wul ci imam wula ci délégué de pour dara wula pour boole la wula pour lu ñaaw déedéet waaye nag damaa jaaxle parce que yow da ngay sama mag ba pare te dañu ni mag ñi nan yërëm xale yi xalé yi joxe cër te joxna la cër bu mat sëkk en tant que sama mak wa bu fekkee nag damaa bëggus ndaw so xamni ni wax fa dëgg yalla ay daan ni ma démé ak mom bu ñu nekké fi Sénégal lépp rafet ma dem bitim réew mu continuer lépp di rafet di gore wax dëgg yalla suma ñëwé tay cay am yéné ci mom mot liko ko sama jabar mais am nga war nga am benen taxaway bu dul nii lu mo wax nga ni tay ëlëk suba lu gas nga sul ko mais lool rek mo taxone waye nak man wax dëgg yàlla bugguma la dépassé bugguma la wax dara lu la naqari mais ni nga mujjee nii daal soo ko defoon duñu egsi fii grand nag maa ngi lay wax merci maa ngi lay wax jaajëf man daal am naa yéene jàpp naa bis nag sama xel waaye comme na ma ko daan waxee rek duma def lenn te moom awma avalam euh, bon un million cinq cent de jekk na de ah, Euh, un million cinq cent laa ko bëggoon may. ana jànq la. Ah, grand wax waxal ak sa jabar. ah lu may xam sa jabar. xam nga tey jàmm moo ma indi. waaw waaw waaw mais tamit góor moom dafay laaj dong. kese day laaj dong. waaw mais ku ñu takkagul musta sëy mu naan jànq la. Ah, waaw yow masul sëy waaye ma nga dëkk ca kër ga na allah ku bar sa jàkka moom yéen a dëkk di. waaw bu guddee yaayam tëj ci néegam bàyyi leen na seenum nekk fii da ko fi daan tëj suba ba ngoon jot moo tax man la xanaa jànq la. tey la dong ah. grand rus naa la de. ma rus naa la de. waaw ba ci mais dégg nga li muy wax. grand moom li mu wax ayul day laaj. dama ah day laaj dong. dama laaj rek waaw mais waaw. dekk ak moom wala nek ak mom wala mu da ñew ci kër gi dama sét ci sa kanam da taf ma def lu ñaaw wala mom mu def lu ñaaw. xam nga xam nga. way non no no rafet njort non rafetal njort waay nak non non grand. wa mo góor ko xamni man la lima ma laaj ay taxaguñ ko. waaw na ay bagage am ak dem ci sa kër. ngeen nek fa ngeen di fanaan. wa lolu mo tax muy e laaj. ñaarel bi yoon mi ngi ni muy wax ci kër gi. lima def bu doon keneen mun nako ko def dama am yermande ndax dañoo nekk ci xat-xat ak ay jafe-jafe jamono metti mais ñu dëkk fa loolu dara nekku ci lan moo si nekk. dara dara nekku ci moo tax golo bay baabun dunde. dara moo tax golo bay. baabun dunde baabun dunde. dëgg mais sama cër ci yow yow dara mun a koo jël Binta. sama lu ma war a lu ma la war a defal incha mais loolu kenn mënu koo fukkati ci man. Euh, waaye nag euh, keneen mën na am euh, leneen ci man nag yow tamit. wuy ma wuy ma góor nank rek ngeen waxtan nak waxtan and na ci day laaj dong ngay bëgg a gis sa bopp amul solo. waxal nak rek ñu xol nga ne ñaata nga koy jox. 1 million cinq cent. de la gis grand. ou le grand man loolu la gis de. Hein? mais donc. non dafa nank Maïssa dama lay expliquer rek. parce que bu fekkee tamit nit soxla nga bëgg mais bo génnee ci biti da nga am jabar budul ramatou lay su fekke yow rahmatullahi kesse mo la impressionné fekke toy ayam la bien que sama jarbar la su génnee gis xalé yi ku gëna a ba paré mat la jabar ta boo leen tekkee ñu seyel la man yow lay dimbali parce que xamna fi nga toll ci man xamna ni problème bo am dang koy waxtaan ak man. mais Tons Tons bala nga xam bala nga euh, wël fël gàmmi jémmiñu sam da ngay xam limuy muy wëlis Tons man lima fi andi du lolou ngay wax du walu mariage yow xam nga li xew sa ginnaw dafa bari te xamna ni xamuloko sa jeer ba ramatulaay dañ ko violé kan lañ tons ramatulaay dañ ko violé dafa nank may sa dañ ko violé ba dafa nank buguma nga am problème ak ramatulaay nga mere ko ba sosol ko non dama lay wax rek may sa kilifa ngay waxal dama bëgg nga def nànk nga wax ak man parce que man bala maa jug

yow goor tarul dara goor nek ci problème mariage am ak mok ayda taatal kenn lijjantiwu ramatulaay lijjantiwul ken mo mariage am bi la tal encore goor day day tak jabar kon yogo legui ñom buñu paré ñom lañ wax ñom kan lañ bokal direct wala kan moy seen kilifa su li amé ñu violer sama jarbaat yegumako goor dem bay takk jabar te man yëguma man léegi man xamatuma lan la nek ci ñom parce que yow ma wax ni sa dag ma jaxase mané gis nga Ramatulaay xam nga Moussa Ndiaye bi ci koñ bi Moussa Ndiaye men xamoo ko Moussa Ndiaye xam nga ko. Moussa Ndiaye benn bi ma xam moo ko violé. ëpp na na ëpp na xanaa leneen waru ko. ah xanaa xamoo ne nag góor farata bi xam nga lan mooy farata bi. Mm-hmm. wareefu jumaa ja can bi guro gi ah tàngali nga war a jënd béyu baay bi day am. té djuma djuné ne laaj lo xamné ci pour liggéeyu djuma ju noonu dafa am lo joxé kon kay loolu lépp da ko di sóoraale. d'accord d'accord te loolooy farata bi. dëgg la wala. ah ah. ak man mii. ak sa sœur. doo ma jox 200000 waaw. eh c'est góora li mala wax moy li nek joxe 1 million bi. 500000 bi nga tek ko sama loxo. xana doo ne bitim réew yag fa lool dik di tak jabar amo ku dul man wow. ngay tak jabar ma war di jaag-jaagi fu géwal neet ki man la ni wa wa leg danga may baye ma ni nak du mam luma joxe mais kon grand ki yam ko baye ni mu mel beug programme beug lu dis beug jaagar jaagari beug tak or mais goor deug lu ma wax la góor mais xew bismillah la en attendant rek ah, góor def ba mu sama yaay ndey booy da daan wax kuy dund da ngay def yëfi kuy dund. waaw sëñ bi ah, xam nga ni bëgg àdduna. te hmm. kii yow rek la am yaa caaminam il faut que mu wane boppam na yow sax grand déglu la sax waaw mu parfois bu ay gën a raisonnable. binta quoi léegi. Ah, ah. mais mais mais mais magu jàmbur. Euh, un cent baax na. un deux cent jaar logique na. waaw baax na foofu mi ngi xëccoon. waaw baax baax na baax na baax na baax na baax na eh, waaye soxna si ma yéene ko waaye bu ma mënoon a. Eh, waaye dafa am lu après. Ah. am na après mariage am na de. am na di. dëgg ah. ah. ah non fekk si naa leen. ah fekk si naa leen. jàmm la la bëggal de. cey sama mag ji moom nag xola la la coow lee bari rek mais damaa bëgg. <laughs> moom dafa bëgg. ma yow la am di. dëgg la ma it yow ah, ah. naa de. keroog nag ah. ah. mais ah jégalu rek. waaw <laughs> sama mag ji. da ngaa bëgg faam. da nga <laughs> dimanche baax ah, ah, ah, dimanche baax eh, eh, grand. quel contrôle mon argent dafa bëgg programme. ah un <laughs> sa quel contrôle mon argent un million nga defal lepp lay joxe bu ma war gari cent 800000 laa leen di jox mariage dañ koy anticiper xam na lépp gone gi koy fanaanool guddi ak bëccëg xam nga ni dangay anticiper mariage bi. ñoom ñaar dañuy mën di fanaan guddi ak bëccëg te ci ku nekkoon bitim réew sax ñaata at. waaw nga ñëw. dañoo dof ñun dof daal xoolal la neexee. nga defe ko noonu maa ngi si ginnaaw yow bàyyi la ak man. waaye yi bu ma ko joxee. man it xanaa yow yaa koy tere yow xam nga yow lay kàttal yow it danga ah 200 yi ma ngi roccee ci 1 yaa ko moom 200 Binta deux cent nga may jox man deux cent lan la mën a faj samay soxla nag Binta. da am soxla. ah suur ba du ma sant di jaagar jaagar di maye. ah ñu xam ne su góor nag wax dëgg yàlla. maye ku la maye loo deux cent yi dama la ko jox nga dencandi ko sa poche on ne melal ni rek yow dañ la koo dénk. mayeloo ma la. koo war a may biis ma ma yow jox la naa weccee ko téeméer yu baree bari jox la dafoo dina jàpp la. Hmm, dëgg yàlla. man loo wax rek baax na nag moom comme dafa dof ba ko mu ba ko dofam man yaayu xale bi laa xamul est-ce que dinaa dem takk ga xoolal ni mu gën a rafet yàkkante nañ fi mbele ma xoolal ni mu gën a rafet rek sa frère ko yaa mën a jàppale de bëgg na bi kii dafa yàqamti kii bëgg jigéen de xanaa dama koy wax mu wax yaayu xale bi man maay kan ah ni ma defe noonu rek laa mënoon defe xam na yaay kan du ñamoon na fii ni ma defe noonu rek laa mënoon defe foog ma tàkk ci kawam

courant jël koo xam ne tak jokkagoo xamoo fu ndayam sosoo man Soda Diagne gàttaayam boobu est-ce que du day soppaliku. Hmm, loo ci wax daal man daal maa ngi sa ginnaaw rek. nga dem jox ko kër gi comme ça nii. bi ma xam man après Moussa Ndiaye violé man sama jarbaat après dara xewul <laughs> mais yow li nga may wax nii ay waxu lan la. loolu moo tax nag ma ñëw fii pour nga lijjanti ko. yow xam nga kër gi ni mu demee. yow Binta dafa melni moy takki sen mais lan mo tax li am Binta xam ko man ñu koy neub man góor a waxuma ay waxam ko mom du góor du jigéen waxuma ay waxam keur ga kilifa neewu fa ben baat mo fay dox moy baatu Binta kon lool dafa xew ñom ñu ñu complot seen biir nëbb ma man. parce que xam nañu suma ko xamee man dama ci def kaani. il faut nga jog de moma taxa jog de. dama koy régler. parce que yow xam nga sama diggante ak Ramatulaay dama ko bëgg may sa euh bul ma sonal ci da nga bëgg rahmatullah yeen ñaar seen digënté jeexna alors ya ngi sax ñi yow ya ma ko wax dañ ko violer yow est ce que buñ la doon may rahmatullah sax dañ ko jël ko xam dañ ko violer mané rahmatullah dama ko bëgg rétons dama ko bëgg te yow xam nga loolu xam nga sama digënté ak rahmatullah motax mu bëgg nga jog mbir mi nga lijeenti ko parce que man duma bayyi mu sedd est ce que dig ma mëna dimbali ak rahmatullah dama ko bëgg parce que ñun amna leneen luñu wara régler liñ ma wax ni lu bes tak la lo xamanteni ma ko sawu dégg tay te li dama ko bayyi mu sedd dama koy régler génneel sa xel ci ramatulaay yow bo bëggee nit ban veela ko sax yow digënté bob jeexna na mënatuloo koo tàkk ku ñu veela doy woo ko dara suma ko mënté ñu koy jël ah dama ko bëgg de dama ko bëgg de tons xam nga né dama xam nga man ramatulaay dama ko bëgg ma yakkan yow da nga am problème sa bop mo am problème touti yow dama yakkan da nga am problème euh, euh, may sa man damay génn nañ demaale du du yow ah euh, da ngay may si jugal xam nga yow dafa melni da nga am problème ah. waaw ah, baax na en tout cas daal lijjanti ko. man nak yow may sa yaa muy bëgg a jaaxal tamit quoi.